ginnaaw loolu kuréelu àttekat ya yépp daldi jóg yóbbu yeesu ca pilaat foofa ñu tàmbali di ko sosal naan fekk nañu nit ki muy fàbbi sunu réew di leen tere fay galak sesaar te mi ngi teg boppam almasi maanaam buur noonu pilaat laaj ko ndax yaa di buuru yawut yi yeesu tontu ko ne wax nga ko pilaat ni sëriñ su mag sa ak mbooloo ma gisuma genn ton ci nit ki waaye ñu sax ci seeni wax naan mi ngi jógloo mbooloo mi di jàngale ci réewu yawut ya mépp li dale ci galile ba fii bi pilaat yégee baat yooyu mu laajte ne ndax nit ki galile la dëkk bi mu yégee ne ngi nekk ci diwaan bi erod mu yónnee ko erod mi nekkoon ci jamono jooju ci yerusalem bi erod gisee yéesu mu am mbég mu rëy bu yàgg ba tey daf ko bëggoon a gis ndaxte déggoon na ñuy wax ci ay mbiram te yaakaaroon na ne dina ko gis mu def kéemaan noonu mu laaj ko ay laaj yu bari waaye yeesu tontuwul dara sëriñ su mag sa ak xutbakat yaa nga fa woon di ko jiiñ bu metti noonu erod ak ay xarekatam toroxal yeesu di ko ñaawal ginnaaw loolu mu solal ko mbubb mu rafet delloo ko pilaat erod ak pilaat dañoo ñi bañante bu jëkk waaye ci bés booba doon nañu ay xarit pilaat daldi woo sëriñ su mag sa njiit ya ak mbooloom yawut ya ne leen indil ngeen ma nit kii ne ma day jàdduloo yoon mbooloo mi léegi nag man mi laaj naa ko ci seen kanam waaye gisuma tooñ ci moom ak li ngeen koy jiiñ lépp erod itam gisul tooñ gu mu def ndegam mu yónneewaat nu ko nit ki deful genn tooñ gu jar ñu koy rey kon nag dinaa ko dóorlu ay yar te bàyyi ko waaye ñu bokk di yuuxu ñoom ñépp naan reyal kii te bàyyi dañoo tëjoon barabaas ndaxte dafa jéem a tas dëkk ba te rey nit pilaat waxaat ak mbooloo ma ndaxte dafa bëggoon a bàyyi yeesu waaye ñu yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant ba mu dee pilaat ne leen ñetteel bi yoon lu tax gantooñ la def gisuma ci moom dara lu jar dee kon dinaa ko dóorlu ay yar te bàyyi ko waaye ñoom ñu sax ca lañu waxoon di gën a yuuxu naan ñu daaj ko ci bant coow la yey pilaat mujj gi pilaat dogal ñu defal leen li ñu bëgg mu bàyyi leen ki ñu ko ñaanoon kooku ñu tëjoon kaso ndax tas réew ma ak rey nit waaye mu jébbal leen yeesu ci seeni loxo bi ñu yóbbu yéesu ñu jàpp ku ñuy wax simon te mu dëkk sireen ku jóge ca wet ga féete ak tool ya sëf ko bant ba ñuy war a daaj ngir mu gàdd ko topp ci moom mbooloo mu bare nga ko toppoon te jigéen ñu bare ngi doon yuuxu di ko jooy yéesu daldi wëlbatiku ca ñoom ne yéen jigéenu yerusalem buleen ma jooy jooy leen seen bopp ak seeni doom ndaxte jamono dina ñëw ju ñu naan jigéen ñi musula jur ak ñi musula nàmpal barkeel ngeen bu keroogee nit ñi dinañu tund yi daanu leen ci sunu kaw te naan jànj yi su leen nu ndaxte suñu defee nii garab gu tooy gi lu ñuy def garab gu wow gi yóbbaale nañu itam ñeneen ñu ñaari defkati lu bon ngir rey leen bi xarekat yi agsee ba ca barab ba ñuy wooye kàngu bopp ñu daaj fa yeesu ca bant daajaale ñaari defkati lu bon ya kenn ca ndeyjooram ka ca des ca càmmoñam noonu yéesu ne baay baal leen ndaxte xamuñu li ñuy def xarekat ya tegoo ay bant yéreem ngir seddoo ko mbooloo maa nga fa taxaw di seetaan njiit yi di ko reetaan naan musal na ñeneen na musal boppam su fekkee mooy almasi bi ki yàlla fal xarekat ya it di ko ñaawal ñu jege si jox ko bineegar te naan su fekkee ne yaay buuru yewut yi musalal sa bopp ñu daaj mbind mu tiim ko naan kii mooy buuru yewut yi kenn ca defkatu lu bon ya ñu wekkoon ci bant di ko xas naan ko xanaa du yow yaay almasi bi musalal sa bopp te musal nu waaye ka ca des yedd moroom ma naan ko xanaa ragaloo yàlla yow mi ñuy mbugal ni moom nun yelloo nanu sunu mbugal waaye moom deful dara noonu mu ne fàttalikuma boo dellusee ci sa nguur yéesu tontu ko ne ci dëgg maa ngi la koy wax tey jii dinga texe ak man ca jataayu yàlla noonu digg ba bëccëg daldi jot jant ba nëbbu réew mépp daldi lëndëm këruus lu mat ñetti waxtu rido barab bu sell ba ca kër yàlla ga daldi xar yéesu woote ak kàddu bu dëgër naan baay jébbal naa la sama ruu bi mu waxee loolu mu delloo ruuwam yàlla bi njiitu xare ba gisee li xewoon mu màggal yàlla ne dëgg dëgg nit ki ku jub woon nit ña fa dajaloo woon ñépp di seetaan li xew ba ñu gisee loolu ñu dellu seen kër fëgg seen dënn di jooy xame yéesu yépp ak jigéen ña ko toppe woon galile dànd leen di xool li xew nit ku ñuy wax yuusufa dem ca pilaat mu ngi dëkk arimaate ca diwaanu yudde yuusufa nga bokkoon ca kuréelu àttekat yi nit ku baax la woon te jub te àndul woon ci li ñu dogaloon te jëf ko da doon séentu nguuru yàlla mu dem ca pilaat laaj ko néewu yeesu ginnaaw loolu mu wàcc ko ca bant ba laxas ko ci càngaay dugal ko ci bàmmeel bu ñu yett ci doj te musuñu ca def kenn fekku bésu waajal la woon te bésu noflaay baa ngi doon tàmbali jigéen ña gunge woon yeesu galile ànd ak yuusufa gis bàmmeel ba ak nañu ca dence néewu yéesu ba noonu ñu dellu defari cuuraay ak laj ngir néew ba ca bisu noflaay ba ñu noppalu ni ko yoon wi santaane